suba la suba ci la ñuy xam Sénégal ci diggante Adji ak Ousmane mi nga xam ni presque ñetti at euh, ñi ngi toog di xaar euh, daal incha allah ci lañ nar a xam lan mooy tukkee foofu la ca tribunal bu Dakar euh, Adji nag ak ñam àndaloon suba daañu demaat Ousmane nag ndax dana dem ak du dem wala këram lay toog ba verdict ba fekk fa loolu suba dinañ ci xam dara. tey itamit la dialogue bi di commencé donte ni démb dégg nañ Barthélemy Dias mi organisé woon débat bi nee na bu fekkee ni troisième mandat bi dañ ko cee bëgg a rocc dem nee na demut te yebuñu ko nag te xam nañ ko te boo gisee Dakar ni tekk la mooy borom Dakar a toog waaye nag bis bu duggee ci mbir yi dinañ xam ne dugg na ci mbir yi maanaam xeex bi ak yu baree baree baree bare xam naa dañuy ñëw rek ci dialogue bi bu ko defee bu a a baax ma jigéen information bi la génne dialogue bi tey lay commencé ah, suba la waaw non loolu xam naa da nga ah, kii rek maanaam wax gaa yi ñu kii rek maanaam daal kii ànd ak dal rek <laughs> waaw kon mu gaaw rek moom moo initié dialogue waaw d'accord moom moo ne moom moo initié dialogue waaw sàkku à que dialogue bi am waaw nga démb maa ngi ko dégg mu ni euh, joxuñu ko thème de référence yi mu ni moom du dem man nag dama jàpp ni li ji di wax rek parfois dafa ñu yóbbaale si xelam xaw ma il veut juste divertir les gens xaw ma lu mu jubluwaay bi lan la mais mënu ma ni yow dangaa sàkku waxtaan wi am ba pare nga toog ba démb di wax ne munu munu munu munuloo dem te aussi mu bàyyi à chaque fois man seetlu naa saay suy def sortem rek mooy que ni waa ji dafa nekk si ay jafe-jafe nañu bàyyi yooyu te dialogue bi war a am tey tey la non mhm. n'est-ce pas tey lay commencé jàpp naa ni euh, dialogue sax moom moo fi waru woon am parce que dëkk bi nu mu tëddee nii son mhm. yi bu mhm. am na yenn yoo xamante ne nii balaa nga koy mën a def ah, rek day fekk waa dialogue dialogue warut a am mooy lan waxtaan kee daa war a am waxtaan buy am il faut ñu toog waxtaan waxtaan day am ah, buy ah. am day fekk sénégalais yi tal ko n'est-ce pas waaw mais Sénégal ba ñu ko taal nag faaw kilifa yi toog waxtaan fitna waxtaan boo xamante ne yow xamuloo luñ fay waxtaane lañ fay waxtaane mooy jàmmi réew mi mooy li réew maanaam jàmmi réew mi la ñuy waxtaane ah, président Sall ne dafa bëgg bu ñu fa jógee réew mi maanaam mi ñu sécuriser ko li ma dégg premier euh, ministre de l'intérieur bi wax ko waaw du jàmmi réew mi la ñuy waxtaane parce que Antoine Diome nee na ah ma jigéen dafa non damay damay wax sooy def noonu ministre de l'intérieur bu Sénégal Antoine waxal xam nga def ni <laughs> gis nañu si ndakaaru wax ji affaire bi dafa ma touché ba dafa ma métti au gis nañ aw ah, ay lay woote benn benn benn tàkk-tàkk. loolu du dara bu mu minimiser affaire bi. ab même bu fekkoon ñaari nit ñoo génn taal fii rek mooy que nii problème am na. Hmm. ma boo taxawee di wax ni lii am kiiwul hmm. ak nangam après nga bëgg a jël wax ji bëgg koo teg foo xamante ne nii àggu fa loolu aussi. na na ko bàyyi pourquoi bu muy wax loolu sax waxul doomu jàmbu ji ñu jël tëj ko fee bancarisé koñam ba kenn mënu faa dugg. lan moo tax ñi nga xamante ne nii dañuy civilu yore ay euh, revolver di ko tiire ci kaw askan mi lan moo tax waxu ci nit ñi 17 morts wala 18 morts yi ñuy dégg boobu. ba ah, tax waxu ok dem na seeti ay fii ay téléphone yi bakkan dafa gën a foor téléphone son yi bu téléphone kañ la gën a foor bakkan son yi bu nañu waxante waaw mais mi ngi def ay acte rek boo seetee ku ku def lii kay nit ñi ñàkk seen bakkan lan moo tax demoon ah, tam seeti mastawu seen i askan d'accord nañu dimbali ngir yàlla waaye incha allah waaw kay <laughs> alaaji jaloog bi tey la incha allah jombul da leen yàpp ñoom ña fas yéene wuy ji am na ñu toog nag euh, ka initié débat bi ma jigéen wax na ko mënee su ko ñàkk laal nee na mm. thème de référence amu ko bu ci troisième mandat bokkul du wuy ji ah loolu moo lay wane loolu du ci dara rek xam nga moom dafa jëw démb pour wàdd ju ne dialogue bi moom ah moo ko initié bi ah, moo ko initié te amul thème ah. maa ngi nuyu Babacar Fall <laughs> Babacar Fall maa ngi koy nuyu. yow yaa yow yaa créé jaral bi taxawoon liñ fa war a waxtaane. <laughs> papa loolu mën a dem. <laughs> a ah, booba jaaxal de parce que démb dafa joxe xibaar boo xam ni xaw ma nu xibaar bi demee. waaw parce que man nan laa mënee wooteeb dialogue ne dialogue bi sama dialogue la. ba pare amoo tey xaw ma lan lañ war a waxtaanee ba du ma dem. mais leneen li ci gën a garaaw. Euh. mooy xalifa mi ngi yëgee ci télé ba ne Barth du dem. waaw ndax nee waaw waaw. waaw loolu mooy wane ni Barth moom mën na jël ay dogali boppam nu ko neexee te nee na woon a xalifa waaw ma nag bi mu ko wooyee ndax da ko doon wax ne ko bul dem hmm. la ko war a wax ak lan la ko doon wax waaye moom daal en tout cas démb xalifaa nga yëgee ca télé ba kii moo tax ma ne la Barthélemy hmm. mooy kilifa Khalifa Sall Barthélemy waaw ah. doxin muy doxee ak ni muy doxalee ah. mooy kilifaam xalifa du kilifaam hmm. waaw xalifa démb du des pas depuis démb dégg ngeen ni xalifa day dem waaw Barth moom ñeme naa taxaw ci télé bi moom ne demut. waaw ah, mais nee na nag ginaaru kenn nenu ko alaaji il faut nga bàyyi xel loolu nee na mm. de ginaaru kenn nenu ko moom mm. moom waaw moom neena kenn du ko dicté lu lu mu bëggut moom ah, dëgg rek waaw mais kon moom it na fexe rek ba moom comme ginaaru kenn nenu ko moom it bu mu jéem a nen <laughs> alaaji alaaji yow tam nag ah, alaaji daa jàpp de kay comme que giraar kenn dëru ko kay moom it bu mu fi nen waaw mais bu fekkee dafa am waxtaan war a am ma jigéen waaw ñu ni troisième mandat bi bokku ci nañ ko teg nee loolu ah, seen mbir bopp la waa bennoo bokk yaakaar kon du dialogue am xam nga moom nañu wax rek nañu dialogue bi du sama dialogue hmm? parce que dialogue bi na wane rek parce que dafa wax dafa génn fëgg dënd ne maay borom dialogue bi dialogue bi sama dialogue la waaw léegi xëy na déw ma ndax xaw ma lañ war a waxtaanee ci dialogue bi. Eh, kon kay contradictoire na de waxam ji dialogue am wax dëgg fa wax rek nañu du dialogue am bu ko defee lim ñu waxoon. Hmm. bee paase ba nit ñi doon wax naan ah ndekete baar ta woote gi léegi kay moom waxaat nañu ne ñu du dialogue am donc du dialogue am. moomu ko. moom ko yoonam newu ci. ñu ni Babacar Fall. Euh, léegi bari na yu mag dégg ci biir nag xam naa dinañ ko gën a yaatal. waaw incha allah léegi suba la suba. incha hmm. allah. ci la ñuy xam itamit euh, fan la aji di mujjee ak euh, euh, Ousmane Sonko. Mhm. waaw. waaw suba la suba de la suba. waaw suba la jouru verdict bi. Mhm. je pense que ni nañ ko xaar waaye man daal jàpp naa ne verdict bi verdict la boo xamante ni bi daal. Mhm. man daal awma ci benn njàqare. lu tax. Hmm? lu tax. ah parce que liñ daal di tëjee nit ñi rek laa gisatu waa ndaw si wa nekk. luy loolu luy loolu. preuve viol la de. waaw procès viol ndaw si wane na lenn lu war a tax ci viol ko. ah kon lu tax léegi kon lu tax ñu taxawal procès bi keroog mu de mu jël presque euh, ñaata 12 heures de temps. dañ ko jëloon ngir mu indi preuve mais ginnaaw ah, na. Hmm. ginnaaw bi aji toogee alaaji nee na. Hmm. mi affaire yaa ngi ci téléphone bi juge bi ah, moo nangul ñu teg ko <laughs> loolu la alaaji wax de alaaji <laughs> xam nga ëllëg ji xam nga kooku euh, li gën a neex mooy ndaw soo xam ne wax nga lépp yaa ngi de waaw sab avocat wax na lépp te mosuñoo génne lenn wax moom def nañ ko wax nañ lépp waaw sooy bu waaw dégg wax lépp moom kañ li leen te mooy génne. sooy bu alaaji baal ma tuuti yow yaa ngi wax ne amoo si benn njàkkare te ñenn ñi bokk si gouvernement bi ñoom ñu ngi daanaka joxe nañ verdict. di loolu alaaji kay moom foofu laay wax. Hmm. far ba déggoo ko démb ak keneen ki am na ñeneen ñoo ah, xam ne noonu la ñu daal ñooñu dañuy ruubee rek. waaw ba pare alaaji man <laughs> foofu bu leen leeroon ni bu leen leeroon ni ah, tee tee nañ tee nañ ci ndam. waaw du ñu di ko wax. léegi man xam nga foofu dama laa dama laa posé benn question démb defe naa man la hmm. nan nga may waxee ni affaire bi dara xewul nangam ak sàngam léegi kaa ji joteel ñu mm-hmm. bari kaa këram xam naa fii ak suba moom jàpp ma ni gaañi dinañ fa jóge mm-hmm. léegi kon lu ñu jublu ci loolu waaw ah, lu ñu jublu ci loolu waaw këram moom ba léegi ña nga fa xam nga wax naa la ne la waaw euh, dañu dem Ziguinchor booy yi barricade kër gi waaw ñu jaaxle waaw donc fii ñu ne buñ ñu fi jiitu maanaam fii li ñu def nii maanaam euh, waxoon naa la keroog ne improviser la maanaam du lu ñu prévoir. Mm-hmm. waaw mais def nañ ko ba noppi nag xam nga li ñu naan li ko takk tasu ko. Mm-hmm. waaw li ko barricadé euh, bu ñu ko dindi parce que dañuy bañ gars yi wañ seen loxo ñu dem mu dañ. Mm-hmm. waaw parce que xam nga fi mu toll nii wax dëgg fa yàlla sony bu. alaaji euh, yow bi nga gisee ñu partagé données personnelles Ousmane Sonko yi tiito. ok xam nga yooyu tiitaange la ci am réew quand même. la waaw moo lay wan ne la parce que lu warta génn. nekk ci loxo ñu ko warta génne. lu ko siiwal mu génn mu génn. loolu rek da wan ne Euh, am lu bari. am na kuréel bu ñu fi teg kuy toppatoo yooyu. am na yu bari yoo xam ne mu ngi li mu doon fonctionner des na fonctionner baal ma loolu lañ jàppee woon Pape Alé Niang di données personnelles. yu benn magistrat bu mu génne woon. léegi après tey ñoom ñi tax. ñoom xam nga loolu loolu loolu après yow nga nga génne am yoo xamante ne bii moom xam naa jombal ay awakaam danañ ko topp te duñu ay cuune dinañ ko bàyyi xel kon boog ñu jaajëfal leen bu baax a baax danañ ci gën a euh, dikk incha allah